بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الطير وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
jazakallahu xayra suñu boroom jalla wa ala mu ne yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm awfu bil uqud matal leen pas-pasu kóllëre yi ngeen fas uhillat lakum bahimatul an'am daganal nañ ci yéen bahima ya ca jurga bàyyuma mooy lépp loo xam ne du wax ca bokk ca jur ga illa ma yutla alaykum lu dul li ñuy jàng ci yéen gayra muxilli saydi wa antum xurum lu bokkul ak daganal am rëbb fekk ne da ngeen a nekk ajo armal inna allaha yaxkumu ma yurid yàlla day mooy àtte lu ko neex yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne di ngeen a gëm laa tuxillu sha'air allah bu leen daganal mandargay yàlla yi wala wala shahrul xaram bu leen daganal weer wi yàlla warmaal wala alhadiya bu leen daganal lam yóbbu war koo rey ca kaaba ga wala alqalaid bu leen daganal giléem yit yañ mandargaal takk ca la nga xam ne moom mooy buum yooyu ñu leen caqal caxal ci tàndarma ya wala amiin al bayt al haram bu leen daganalit ña nga xam ne dañoo jublu ca néeg ba ñu warmaal ba yabtaxuuna fadlan min rabbihim wa ridwaana di sakku ngëneel yu bawoo ci seen boroom di sakku it ngërëm gu bawoo ci seen boroom wa ida xalaltum fastaadu su ngeen demee ba génn ci seen armal su boobaa bu leen neexee ngeen rëbb wala yajrimannakum shana'aanu qawm bu mu leen yóbbu mukk nag mere gu ngeen mere aw xeet an sadduukum anil masjidil haram ci fekk gañ leen fekk ca jàkka duñu warmaal ja an taatadu ay ala an taatadu ngeen dem bay jéggi dayoo wa taawanu alal birri wa taqwa day leen dimbalante ci lépp luy jur njekk ak ragal yàlla wala taawanu alal ismi wal udwan bu leen dimbalante ci lépp loo xam ne day jur bàkkaar ak noonu wattaqullah waaye ragal leen yàlla inna allaha shadidul iqaab yàlla day ko tar la ci ni muy tappe ay jaamam di leen mbugal mi ngi noonu bokk li mooy suratul maida di saar bi mujj a wàcc di leeral lu dagan ak lu xaraam ba lépp loo xam ni ay juyoo la ci téere bi soo demee la nekk maida loolu mooy la ñuy jëfe ndax loolu mooy la mujj suñu borom tasaare ci it atte yu bëree bëree bëri woo ci jullit ñi ci gën jaa bëri woote jum leen woo ci téereb yàlla bi suñu delloo ci téereb yàlla bi am na juróom ñett fukk ak juróom ñett 88 fois suñu borom di wax ya ayuha allazina amanu benn saar bi ñu dal tey di suratul maida suñu borom dana ñu ci woo fukki yoon ak juróom benn 16 fois yàlla dana ci wax ya ayuha allazina amanu suñu borom ubbee ko ya ayuha allazina amanu et yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm heure boo ko déggee xamal ne la ca gannaaw day luy dëgëral ngëm la bàyyi ko it mën na yàq ngëm suñ borom mu ne matal leen kóllëre yi ngeen fasante ca mbokk jullit mi ngi noonu mooy koo xam ne lépp lu mu dige loolee day taxaw ci def ko la jiitu lam dige digganteem ak boromam ci jaamu ko bañ koo bokkaaleel waaye it lam diggante diggante ak i moroomam mbokk dige wor loolu mandarga na fiq la islam bëggu ko yonent bi alei salaam nee na loolu ci mandarga na fiq la doomu aadama bi lépp loo siq ak say moroom ngeen fasante ko kóllëre nga la way matal ko bokk ca la yonent bi alei salaam doon wax naan inna axaqa shurut inna axaqa shurut tuufuuna bihi mastahlaltum bihi lfuruj bokk na la gën a yeey ci lu ngeen di war a matal la ngeen def ba jigéen ñi dagan leen kon la nga siñante ne soxna si su ma la takkee defal la lii defal la lii nga la way matalal loolu bokk na ci loolu nga sol sa dàll dem ci doomu aadama fasante moom kóllëre na ko lebal ma nangam ba jamono kii ma fay la ngalawaay bis bu jamono soppeekoo ñëwal fay ko ni ngi noonu ay matal leen dig yi ngeen diggante contrat de travail kaay liggéeyal ma lii ma fay la lépp loo xam ne nii daal ci jëflante la ci gàttal borom bi da koo tënk alwaquur mi ngi noonu matal leen ko muy safaanoo ak ñu bëri tey li ñuy wax te la nga dëgga kooku allemand la lu mu la wax rek mu nekk ci moom kooku anglais la kooku mbokk nañu wax kooku jullit la allemand ak anglais yi ay warkat lañu jullit bi ragal yàlla kooku rek mooy seet dëgganteem ak boroomam jalla waala mi ngi noonu borom bi nag ne daganal nan ci yéen bàyyi muy al anam di xéewal gu ñu yàlla defal ca mooy giléem yi nag yi xar yi ak bëy yi yàlla may ñu leen gis benn waay mën a am ñetti téeméeri nag xëy suba boole leen ak gone gu ndaw mu yóbbu leen ba fu ko neex bu ngoonee léeg-léeg ñooy nibbisil sax seen bopp bu ko neexee jàpp rat bu ko neexee tër ren di ndeysaan ñu toog rek déggal la xar ya noonu gileem ya noonu loolu di xéewalug yàlla yàlla mun a daganal naa leen bàyyi ma yooyu lu dul li ci yàlla di jàng te incha allah moom lañ nar a jàng suba ca la nga xamee ne dafa bokk ci jur googe suñu borom ne bu melee nii buñ ko lekk bu deeyee nii buñ ko lekk illa ma yutla aleykum loolu it mu lay jàngal ne mbokk kaw suuf lépp lu fi nekk dagan na lu dul yàlla ne xaraam na kaw suuf lu fi nekk dagan na nit ki lekk ko lu dul yàlla araamal illa ma yutla aleykum muy contraire u diine diine lépp daa xaraam ñu koy jëfe lu dul yàlla joxe ndigal amma bu dee lekk lépp dagan nañu lekk lu dul yàlla ne li xaraam na borom bi subhanahu wa taala yi dolli ci ne heure boo xamee ni nii yéen a ngi armal jëm ca kaaba ga ngal la way bu leen rëbb bu leen rëbb loole question ba ñuy posé ah waaw yàlla nga ne bu ñuy dem kaaba ga leen rëbb pourquoi te yàlla ne su ngeen jógee kaaba ga rëbb leen lu tax loolu suñu borom ne inna allah yaxkum ma yurid yàlla mooy mooy atte lu ko neex te loolu moo tax jullit du wax pourquoi abadan jullit li muy wax mooy sami'na wa ata'na dégg naa topp naa mais lu tax yàlla tëral li loolu jullit du ko wax loolu waxu yéeféer la looloo tax ba yàlla araamali riba yéeféer ñu ne waaw innama al-bay'u mislu riba riba ak njaay benn la rek kii jënd na portable dix mille jaayee quinze mille kee moom leble dix mille fayee ko quinze mille suñu borom ne déedéet ahalla allahu al-bay'a wa harrama riba loolu rek la leen yàlla wax yàlla ni ko foo naan yéemuñu sax di leen détaillé ci ku am xel xam ne yéemuñu waaye yàlla dane waaw waaye maa daganal bi araamal bi jeex na inna allaha yaxkumu ma yurid loolu la ab julit war a gëm borom boobu nag subhanahu wa taala bi mu waxee loolu ba pare mu ne ay yéen julit ñi bu leen daganal sha'air allah sha'air allah mooy bépp mandarga buy wone ne dañ koo jaamoo yàlla masalan inna safa wal marwata min sha'airillah lii di kaaba ga lii di safa ak marwa lii di arafa lii di lépp loo xam ne nii ay mandarga la julli ci la bokk koor ci la bokk addi lépp lu mën a doon loo xam ne yàllaa ko tëral muy mandargay diine ji yéen julli ñi bu leen ko jalgati wala shahrul haram weer bi ñu war maan loolu jins la ay du question ne benn weer la waaye suñu borom mu ne minha arbaatul hurum dafa am ñeenti weer yoo xam ne jullit da koo war a sàmm lu raw ni muy sàmme yeneen weer yi ca mooy zulhijja zulqaada muharram ak rajab li ñu naan digg tabaski tabaski ci boppam tamxarit ak li ñuy tuddee ndeyu koor suñu borom it mu ni sàmm leen ba tey it la nga xam ne mooy hëdiyu wal qalaa'id al hëdiyu mooy gàtt yéen jël di yóbbu pour rey ko ca kaaba ga suñu borom mu ne maadaama tudd nga ni lii kaaba ga la jëm bul dem ba ci yoon bi nga daal di koy afra di ko añee ko reere bàyyi leen ko mu yegg ca kaaba ga giléem yi ngeen utal ay xalaidit nga xam ne xaram ci tànnarma lañ daan jël raw ko rawin boo xam ne arab yépp xam nañ ko suñ ko masaan gis ci baatu giléem liñ daan nekk nekk ay yéeféer kenn du ko laal dañ daan kii ku ko laal alko kaaba ga rek la jëm gis nañ ne rasul sallallahu alayhi wa sallam bi muy aji ca ajam nga téeméeri giléem la yóbbu sallallahu alayhi wa sallam téeméeri giléem moom demee mu rey 63 ya ci la ci loxoom en li rey la ca des kon loolu bu leen ko nekk di ko jalgati waaye nit ñi seen bopp it gis ngeen suñu borom nga commencé ci jur ga ah ñëw nag ci nit ñi ak ña nga xam ne it dañoo jóg jublu ci néeg ba ngir doon ñuy aji wala du umra ji mi ngi noonu amina loolu nag bokkul ak amin comme bi ngeen di wax ci julli léegi-léegi nag gis gaa yoo xam ne dañuy taral lool amin loolu day firi ñu jublu waaye da ngay wax amin rek loolu suñu borom mu ne ña nga xam ne dañoo jublu néeg ba kon baytulaali xaram di sàkku ji ngëneelu yàlla ak ngërëmal yàlla naam ngóor soosu fi génn temps yi ci média yi nee na mais nit ñi fan la yàlla waxee màkk la ñu war a aje ah non loolu moom daal ala kulli haal moom fi ñu war a aje xam na ko bis bu arab yeeg juif yi toogee doon leen wax fan la yàlla wax ñu aje fa ah xam naa daal lii am na kenn ku ko tontu lu ko ah xaw ma de gan at ngay wax waaye bu dee aju lislaam bi ñun xam nañ fu ñu koy aje ndax yàlla moom leeral na ko amina baytul haram ida afadtum min arafat mash'aril haram safa ak marwa loolu da yaakaar naa amul israël amul mur de lamentation mi ngi noonu kon monsieur Saway aj geneen ga ngay wax daal xëy na moom yaa yaa xam ban aj la waaye daal ñun jullit ñi ñun xam nañ fan la ñu war a aji suñu borom mu ne amin al bayt al haram jëm ci néeg bu ñu warmaal ja yabtaxuuna fadlan min rabbihim wa ridwana suñu borom yàlla nag ne su ngeen demee ba génn ci aj gi rëbbi leen loolee firiwul ne ku jóge aj màkkari dangaa war a rëbbi déedéet waaye yàlla joxe woon ndigal ne rëbb araam na loolee bu doon aaye ba fa la yem dañ naan ku mas a armal dem màkk rek rëbb dana araam ci yow ba ila yawmi diin ndax yàlla ñu ne bu ngeen xisoo armal bu leen rëbbati waaye suñu borom ne bu ngeen armalee ba jóge ci armal gi rëbb leen loolu mooy la muy wax ci ajjuma iza nuudiya li salaati min yawmi aljumaa fasaw ila zikrillahi wa zarul bay'a heure bu ñu noddalee jumaa ji dem leen wuy ji jàkka ja bàyyi njënd ak njaay aaye ba bu fa yemoon dañ naan kon desuti bis bi yépp kenn wuratul jënd kenn wuratul a jaay moo tax suñu borom ne ida qudiyati sala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah su julli gi paree dem leen sàkku ji ngeneelu yàlla ça ne pas dire que ne ne ñi ñëwoon ci jumaa ji yépp dañoo war a riir jëm ca marché ba waaye yàlla dañuy wax ne lee ma araamaloon ci yéen bi ngeen waxee salaamaaleykum léegi dagan na ci yéen kon iza xalaltum fastaadu léegi nag yonent bi ak saaba bëgg nañoo dem makka ci umra waa makka na leen du ngeen fi dugg du ngeen fi dugg retour na leen bala ca xew xam ngeen ko biñ ñëwee nag ndawi saxaaba yi ne d'accord ñi ngi bëgg a dem aji ji makka umra ji ñu ne du ngeen fi dugg ci loo xam ne nii kenn mësu koo def kenn ko dul ñun ca mbokk arab yi même bu ñu xeexoon ak yéen mooy waa makka yi nga rey ci ñoom téeméer ak juróom fukk te suba ga nga bëgg a umra si kenn du la laal loolu dañ ko warmaaloon am maa nag bi lislaam ñuy nekk diini dëgg loolee moom mayuñu ko lislaam ndax it yéeféere ñoom reconnaître nañ seen xërëm yi islam nag daa ñëw ne yéen nekku leen ci dara xërëm yi yépp zéro moo tax loolu moom mayuñu ko lislaam ndawi saxaaba yi nag na baax na madina day amul kenn kuy jógee te fenn ci yéeféer naan day jëm màkk lu dul daan dajeek moom jalgati ko moom it comme nim ñu nit ñi tere màkk suñu borom ne déedéet mere gi ngeen mere ay nit ci ngeen bëgg a dem ca màkka ñu tere leen ba mu tax ngeen jiggi dayoo ba di tooñ yéen tamit te it loolu mbokk mi ngi noonu islam du nangu ma sàmba tooñ la nga fayu ci ma demba même ma demba boobu bu doon bàyyam wala doomam fala yusrif fil qat la yàlla wax bu mu jéggi dayoo booy fayu fayul ca kala tooñ kese loolu mi ngi noonu ñii nga xam ne ay yeneen yéeféer lañu bokkuñu ak waa makka bàyyi leen leen ñu dem omura ci loolu mooy la nga xam ne borom bi wax ne la ko mu ne nag mere ay nit bu mu tax ngeen jéggi dayoo ca tamit doomu aadama bi bu la tooñee suñu borom nee na jazaau sayiatun sayiatun misluha képp ku la tooñ am nga droit fayu lu toll ne lam la tooñ waaye nag bul ne ma comme tooñ na ma rek kon ma nit lu ma neex def ko déedéet mere gu ngeen mere ay nit doo téye bés boo demee dalaa tooñ yemal fayu te tooñ gu toll gam la tooñ wala taatadu suñu borom subhanahu wa taala wax na ci yeneen ay yu dul jeex inna allaha la yuhibbul mu'tadin yàlla bëggul ñu jéggi dayo bokk na ci aada yi ceddo gu mën a doon heure boo xamee ni nii sa mbokk dafa nekk ci jafe-jafe nga daal di ko ciy dimbali borom bi nag ne waaw dee leen dimbalinte ci lépp loo xam ne day jur njekk di ak mbaax goo xam ne day aju ci doomu aadama yi ak lépp loo xam ne day aju ci diine ji soo demee suratul baqara suñu borom mu ne walakin al birra man amana billah ila axiri lim yu bëri ne lii bir la te bir mooy ngëm gu sell ak jëf yu baax yu lislaam dégle dee leen dimbalinte ci taqwa te taqwa buñ ko tënkee rek mooy ñu taxaw ba def ndigali yàlla yi taxaw ba def ba moytu tere yàlla yi lii mooy taqwa lii nag lu ngeen man ci dimbalante ko def leen ko dee leen jàngalante dee leen a ñaaxante dee leen terente lu bon waaye nag suñu borom mu ne bu leen dimbalante ci mukk loo xam ne ism la mooy loo xam ne bàkkaar la bu jëm ci diine ci wal udwaan ak bakkaar bu jëm ci noonoo diggante nit ñi lépp loo xame ne nii waa ji mi ngi ci jëm te lii di bakkaar bu ci dimbalante ak moom moo taxoon yonente bi alayhi salaam ne yàlla rëbb na ci riba kaka bind kaka seede ila axiri naka noonu it sàngara yàlla rëbb na ci nii waaye mbokk waa ji bëggoon a njaaloo mu ñëw nga abal ko néeg ñee bëggoon a baal nga abal leen seen kër yow mi jël sa kër luwee ko kuy ubbi baaru sàngara yow mi jël lum mën a doon bépp bakkaar bu doomu aadama ji def bakkaar boobee nga may ko ci ak yombal yéen ñaar yéen a yem képp ca bakkaar ba moo tax borom mu la taawuna alal ismi wal udwaan léegi nag yéen ñëpp bokk leen ragal yàlla ci xam ne yàlla day ko tar ay mbugal la yal na yàlla rafetal suñu ragal yàlla yal na ñuy fegal mbugalam àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain bu tëddee yee dagan nañu lekk ko non dagan nañu lekk ko loolu ndax tey li ñuy wax hippopotame yooyu ca la ñu bokk hippopotame xëy na ñu ko xam-xam nañ ko ala kulli xaal mbokku dafa am yoo xam ne nii dafay dund ci biir ndox mooy moom ndox rek moom mooy place dundam yooyu mooy jël atteb géej moom la yonente bi alayhi salaam naan xillun may tutu may tatu mooy li ëpp moom ma ngay sax ca géej ga ca géej ga yëpp dañ cay boole la nga xam ne mooy dex ga amma la nga xamee ne nii mooy day dund ci géej di dund ci jéeri lu mel noone da ngay gis ne la ëpp ci borom xam-xam yi boole wuñ ko ci loolu lu mel noonu moom fokk dañ koy rey rey googee dañ koy rendi rendi googee mooy tax mu doon loo xam ne lii mu dagan la allahumma lu dul dund ga muy dund ci jiiri léeg-léeg rek la day génn rek ci jiiri ji di delluwaat waaye dundam moom la ëpp ca géej ga lay nekk su boobaa it bu ca dee day jël acte boobee mais daal loo xam ne ni mën na def ci géej gi weer mën na génn def ci biti weer ak yu demee noonu loolee moom du jël attey luy dund géej ni ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma bu dee till ndax am na ñoo xam ne dañuy lekk la nga xam ne till till loolee dafa bokk ci ay faddkat am ay sell loolee da ngay gis ne rasul sallallahu alayhi wasallam dafa doon tere lépp loo xam ne dafa am ay sell cay fadd till yooyu moo xaj benn rek la ixtilaaf yi borom xam-xam yi am mooy bukki doonte ne ni ab sénégalais dana ko jaaxal waaye nag la gën a wér ci texte yi sax mooy bukki moom dagan na waaye suñ jàmm boo ko toggee rek bañ maa invité waaye ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne bukki moom amul ay sell moom day fekk lu ñu rey mu ñëw tiim ko di lekk mais bokkul ak till wallahu aalam naam maziyu mooy benn liquide la boo xam ne nit ki buy xalaat ci wàllu jigéen wala wàllu góor mu liquide bu sew buy génn doo yëg sax ndax génn na am ma mën yu bànneex bu mat moo koy génne nga xam ne buy génn day mel ni luy tëb nga koy yëg ca mooy gën a dëgër liquide ba doon lu dëgër mel ni ay xaax si ndoxu loolu la ñuy tuddee mën yu loolu moom bu la dikkalee da ngay sangu amma mës yu bële lu mu bari bari bari mooy ndax ba sew boobu di génn nga xam ne sax doo yëg ah loolu moom da ngay raxas sa tubay nga daal di jàppi mi ngi noonu bokk na it nga raxas sa awra yépp ba mat sëkk loolu la ca borom xam-xam yi di wax wallahu subhanahu wa taala alam lu mu wax wadiyu ah wadiyu moo bu dee wadiyu moom loolu lu ci bëri mag ñi lay dikkal ci bëri mag ñi âgé lay dikkal léeg-léeg mën nañ tuur ndox ba pare benn liquide la boo xam ne dafa xaw a jéng jëm ci jaune loole yi tamit moom moom mesure presque ñoo yem day génn noonu fekk du benn bànneex moo koy génne lu jege ci wàllu sëy kooku atte mesure rek la yor mooy dañ koy raxas jàppal ko la ñuy sangul daal muy mëniyu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah la nga xamee ne mooy soccu mu am yoo xam ne dafa rëcc dugg loolee la gën a wér ci borom xam-xam yi mooy nekkul lu yàq ko suñ yonent alayhi salaam moo ñu digal ñu socc te la chaque ne kuy socc fokk dina am luy jóge ci socc ba ci caf ka wala lu deme noonu maadaama dal ci socc bi kese kese kese nga yem tayuloo ko boo ko tayewul da yàq su ko mais bu dee tayuloo ko ya nga xam ne ay décites yi socc la yuy dem nga duggaale sa biir put loolu da ngay gis ne nekkul loo xam ne nii lu yàq sa koor la li ngi mel ne rek waa ji gëllax ndiku di jàpp di gëllax ndiku la chaque ni amoo certitude ne ndox mi dugg sa làmmiñ lépp lépp lépp génne nga ko ndax kon foo gëllax ndiku par exemple dafa ne xaaf tudd ko tax ba mais loolu islam tegu loolu donc desitu yooyu nga xam ne dafa des ci gémmiñ gi loolee boo ko wan ne it jubluwoo ci war na ndox su boobaa islam baal na la ko wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah naam waaw waaw bisimilah après ñu mujjee ci mbokk ba rek bisimilah. waaleykum salaam. théâtre yi ñuy seetaan ci weeru koor bi rawatina ñuy def ci wàllu ndog yi loolee mbokk nañu ngi xam ne base théâtre bépp théâtre bu jaxasoo góor ak jigéen nekk daganul ay jurit di ko seetaan. bépp théâtre bu ay jigéen génne seen awra di def daganul jullit di ko seetaan bépp théâtre boo xam ne la muy jàngale du jukko yu rafet daganul jullit di ko seetaan mu bokk nag la gën a bon gën a bon théâtre yi nga xam ne ay maye la ca maye yu bëri mi ngi aju ci wàllu diine ji loolee moom dafa nekkati lu gën a grave ala kulli xaal waxtu ndogu waxtu jaamu yàlla la dellu ci yàlla du waxtu toog di di seetaan ay théâtre wallahu aalam ñu mujj ci mbokk bi doon tànnal fii bismillah waaw waaw socc ak ak lan ak sopp lan ndax sopp nañ ko ci bëccëgu weer ah ndax ndax socc sopp nañ ko ci bëccëgu weeru koor am na ay borom xam-xam yu naan buñ demee ba zawal passé sopp ñu ñuy socc ñoom fañ ko teg mooy la yeneen bi alayhi salaatu wasalaam di wax ni la xalafu fammi saim atyabu inda allah min riihil misk nit ki bu wooree ba ngoon ba gémmiñam soppiku loolu moo dàqal yàlla xetu misk ñenn ci ñoom naan bu zawalee du ñu socc waaye la gën a dëgër borom xam-xam yi ni socc sopp nañ ko ci bëccëg yépp rasul sallallahu alayhi wasallam moo ne woon su ma bañul woon sunal sama xeet danaa leen digal fu ñu jullee ñu socc te waxul lu dul bu ñu wooree ndax boo xoolee ba muy wax booy sarax ndiko ca njàpp dane na nga matal sarax ndiko bi lu dul fekk da ngaa woor amma socc waxuti lu dul da ngaa woor kon ki socc moom journée bi yépp mën na ko socc mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain